mbokk yi ba tey ñu ngi wéy euh, ñu wéy ak yéen ci li nga xam ne moo di programme bi waaye xam ngeen ne jataay bi ni kilifa diine yi di teewe noonu la kilifa aada yi di teewe itam ànd ak sëriñ bi ñu ngi war a jox kàddu gi nag euh, monsieur Abdou Karim na kon ginnaaw nuyooyu ak ziar yi tey ñu gis ngeen teew fii ci Touba ngir ànd ak sëriñ bi ci dundal euh, koor gi jéego yi lu ko waral ak loo ñu mën a wax ci jataay bu am solo bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen uh, siyaare ci weer bu tedd bi weer bi tedd bi nag ku ne xam na uh, li mu doon ci lislaam waaye ni ko Serigne Touba fonkee moo tax at mu jot rek uh, buñ ko mënee dinañ ñëw barkeelu ci bés bi barkeelu ci guddi ci naafile bi ak li nga xamante ne it mooy ni ko sëñ bi di dundalee fii ci kër sëñ Touba gi ku ne xam na sëñ Touba koor ni mu ko fonkee te mu tënk ko ci ñetti xasida yooyu nga xam ne benn bi la koy teeroo benn bi lay ànd ak moom benn bi la koy gunge mooy yaa mukrima day fi yaa xayra day fi ak li nga xam ne mooy yaasal bu charaati loolu yëpp doon kon xéwal bu ñu suñu borom may te euh, ñu xéwal bu jëm ci loo xam ne lépp yiw la euh, fexe di ci barkeelu rek ànd ceeg mbokk yi ak waa daara ji leen sant bu baax ci liggéey bu sell bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy defal sëñ temps bee gàtt waaye incha allah mënoon naa gën a yaatu waaye ñu ngi signalé léegi ne euh, xam naa ne Baye euh, Mansour mu ngi teew ba fas yéene euh, dalal kuréel gi nga xam ne ni ñoo fas yéene jàng tey muy kuréel adolescent ñu yëkkati programme bi nga xam ne ni moom lañ fas yéene dal di jàng fii ci salle bi di leen fàttali ne kuréel goo ngeen dégg muy jàng mooy kuréel 4B bu daara bu Tarqiyyah bu dakaar kon liggéey bi yéen a ngi koy seetaan ci gox yu fasante ci àdduna bi ngir nag lëkkaloo goo xam ne ni lëkkaloo nañ ko ci wàllum way xalare yi moo xam muy télévision yi rajo yi ba ci site internet yi ba ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy jàllale ngir sàkku ngërëmal Serigne Touba Cheikhul Khadim xam naa comme waxtu wi dem nañu dañ leen di jox dox daje ëllëg ci waxtu wi di leen ñaanal ngërëmal Serigne Touba jërë ngeen jëf